Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 5 septembre 2024 vous la des desandi ci primature fekk ji fa premier ministre ginnaaw bi mu dajeeg ñi nga xamante ne employé primature mu yëkkati fa daal ay discours yoo xamante ne de nañ jàpp nañ da doon menacé dellu si waat na ci ay menaces am jamono ji daal xam ni képp da nga ancien régime bu président Macky Sall désormais amul kenn ko xamante dal di nga ci génn ci li nga xamante moy mooy réew mi ndaxte dina activer machine judiciaire bi nga xamante manam jëm ci rapport Cour des comptes IGE ak IGF ñom ñëpp dal kenn du ci génn réew bi nañuy jàpp ni daal jamono ji mu wax ni que daal jàpp na ni que ñetti nit daal daal dinañu génn réew mi gis nañu après daal ci militant pacifique ñu publier kii di Antoine Félix Diome kii di Antoine Félix Diome ñun nag d'après suñu ay information kii nga xamante ni mooy Pape ngi fii ci Sénégal génnul kii di Antoine Félix Diome mi ngi fii ci Sénégal génnul kenn rek la réussirul jokkool muy kii di Mame en tout cas moom daal loolu la xam premier ministre daal bi nga xamante ni chasse aux bi commencé na muy gouvernement boo xamante ni revanche la ñu bëgg a jël moom mii di premier ministre dafa doon nit koo xamante ni offensif la ñëwee ginnaaw bu mu promettre démb ci àllarba bi. que bés yi ñuy ñëw dina doon ay bés yu lëndëm jëmale ko daal ci ñi nga xamante ne mooy dignitaire u ancien régime mu président Macky Sall lii di révision des comptes dina démarré jamono ji étalé lépp loo xamante ne benn temps la ginnaaw bi ñu bëggee bépp nit boo xamante ni nga permettre def n'importe quoi jëmale ko daal ci ay coûts milliards ay foncier yoo xamante ne dañ ko bâtir ay marchés publics jëmale ko ci ay marchés classés secrets jaarale ko daal ci ay défense concession ak lépp loo xamante ni daal domaine la bu ñu war a amasser jëmale ko ci ay milliards doon na li nga xamante ne tey ay conditions la yi nga xamante ne dañ ci war a xalaat jëmale ko daal ci génn génn ci li nga xamante ni maanaam mooy fulminité bi ñu nekkoon moom premier ministre daal dina confirmer que lépp loo xamante ni ay mesures conservatoires la dina ko jël jaar la ko daal pour que kenn dootul génn désormais li nga xamante ni mooy réew mi ginnaaw bi ñu xalaatee ni que kii di Lat Diop bi ñu ko bloqué woon foofu ci aéroport international Blaise Diagne semaine bii ñu génn tey am na ñett ñoo xamante ni daal dinañuy échappé ginnaaw loolu amul kenn koo xamante ni mën nga ci tiré li nga xamante ni mooy sa orteil jëmale ko daal ci li nga xamante ni dinañ ci dellusiwaat ci jour yi nga xamante ni moom lañ jëm. lu toll ci ay fukki fan dina ñu rendre compte ba noppi daal di waat ci kanamu kii nga xamante ni mooy premier ministre bi en tout cas ay kàddu yooyu daal la xamle en tout cas muy ay menaces yoo xamante ni moom premier ministre jagleel na ko ñi nga xamante ni daal ñooy ancien dignitaire u régime Macky Sall nee na fii ak fukki fan cour des comptes dina démarrer képp koo xamante ni da jël alalu réew mi jël ay milliards askan bi ci ay foncier wàllu suuf ñoom ñëpp danañ leen traduire ci kanamu yoon ginnaaw loolu daal interdire na képp génn suñu fàttalikoo kii di Lat Diop keroog dañ ko bloqué foofa ci aéroport nit ñoo xamante ni génn nañu réew mi alors que ñun bu ñu vérifier ñeenti nit ñooñu daal kenn génnu ci réew mi ñu ngi fii ndaxte ci réseaux sociaux yi ñenn ci ay militants Pastef ñoo cité tur yi moom premier ministre cité wul benn tur dafa ne daal ñeent waa Pastef yi daal ñoo cité ginnaaw loolu daal kenn lañ ci jotul muy Mame Mbaye Niang muy ay kàddu yoo xamante ni daal moom mii di premier ministre yëkkati na ko ginnaaw loolu nag am na ay scandale yoo xamante ni ñoo gën ëpp solo ëpp urgence nekk ci régime am muy bu ONAS kenn déggu ko mu wax ci. muy bu AIBD ken déggu ko mu wax ci bu por ken déggu ko mu wax ci bu azer ken déggu ko mu wax ci mais jamono ji dal dafa melni ni dafa singale ñi nga xamanteni moy ancien régime bi ginnaw motion de censure bi Abdou Mbow dogalon ci taabalu assemblée nationale dafa melni ni dañu nek jamono ji ci ben guerre diggante li nga xamanteni dal moy exécutif bi ak li nga xamanteni dal moy assemblée nationale.